internetu Dakar Live TV Univers maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaar mbégte la comme saa su nekk rek jàkkaarloog yéen euh, tey nag ma daal di ñëw seet ki nga xamante ni moom moo di suñu papa mu di Ousmane Seck ndax yaakaar naa ne nag euh, bu réew mi tollee file dinañ ko dem seeti ndax kàddu yu am solo yi nga xamante ni daal dina ko dina ko amal saa su nekk rek di defendre famille euh, gis ngeen nag Waly Ballago Seck ginnaaw bi nga xamante ni amal na ab anniversaire mu daal di dem bi ko dañ koy dañ koy waxtaane rek papa Ousmane maa ngi lay ziyaar aji maa ngi lay dellu ziyaar <laughs> di euh, la nuyu. Eh, yëkkati micro tuuti waaw. di nuyu waa Univers Info. di mhm. nuyu dakaar Live. solo di nuyu internautes yi. ñi nga xam ne ñooy suivre euh, site yi. Mhm. ginnaaw léegi kër gu nekk dafa am site. waaw site yi dañoo bari. macha allah amul macha allah. ah kon nga ni site internet yi nag vrai la ñuy joxe. waaw. Mhm. léegi waaye léegi comp ci. léeg-léeg ñu yëngal dëkk bi tuuti. <laughs> d'accord <laughs> sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. gërëm suñu wayjur yi di ñaanal kilifa diine yëpp waaw tàmbale ci sëñ Muntaxa nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Tuubaa suñu sëriñ mhm. di ko jaar ndekki Cheikh Bass Abdou Khader sama sang bi sama sëriñ bi di ko ñaanal mu yàgg fi lool ñaanal sëñ Babacar Si Mansour ñaanal xalifa Laayeen ah, Ceneba kër maam Njëgeen. Mm-hmm. waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. fi nekk rawatina euh, Cheikh Baxayda euh, Cheikh Saad Bou mi ci Géejawaay ak sëñ Modou Lamine ma ca Yoff euh, di siyaar suñu mbokk yi tamit catholique. Mm-hmm. nga xam ne ren ñoo ñoo waroon. ñoo waroon waaw day wax alléluia. alléluia alléluia waaw. d' accord allah. Ah. nuyoo bi am na solo dañuy dugg directement rek ci li nga xamante ni moom moo di waxtaan bi mais tey dama ñëw fekk la nga def sa sa sa ñetti abdu yu baax a baax macha allah. waaw kii maa koy door sol sama doom Waly Seck moom ko jox ci anniversaire am. Ah eh, sama juumu ko ñëw sama jarbaat. waaw mhm. doom bu mel ni Waly Seck moo tax ma. yaa am Waly Ballago Seck. keneen amu ko ci réew mi. <laughs> lii daal la la teralee ci anniversaire bi. waaw ak yeneen. ñoo mhm. xam ne du la ko wax tamit. ah bon yu mel nan yeneen. Euh, oto la terrain la. doo ko xam. <laughs> dama ci xaw a compal tuuti c'est wala dafa duy compte bancaire bi. Ah, ba tey dina la ëmp de di ci maandu la. ah bon waaw. laa dikk. Euh, yow nar ngaa sonn du la tontu. d' accord ñu avancé dem nag ci li nga xam ne moom moo di anniversaire bi mm. ñu gis sa teewaay euh, ci ci ci anniversaire Wally ko Seck duñ la laaj lu waral teewaay bi parce que ñëpp xam nañu ko mais surprise bi mu bi mu àndal lan moo ko waral. maa xam surprise dafa am yu neex. Mhm. am yu naqari waaye bokk na ci gestu gis sa ndey gis sa baay gis say mbokk. Mhm. ak ñi la bëgg dafa am solo ah. ba tax na bi anniversaire bi amee dafa am sama benn euh, jarbaat bu ñuy wax dafa ñëng nga xam ni nekkoon na fii ousband ci man euh, moom daal sa anniversaire doom bi dama buggoon daal noo mën a def nga jóg mun nga ñëw fa ma ne ko ah man yëguma ko munuma non père looloo ci neex nag comme yëgoo ko yëgu ko xam nga ñëpp a ngi ñëw ah sa doom la doo fa ñëw mhm. ma xaw a kii nii yoon mu ne ma père ñëwal Wally daf la bëgg daf la respecté te yaa fi coon ma na ko man am naa ay mag euh, ma pende mi France Mor Dior mi ngi États-Unis euh, ma Fatim mi ngi fii mhm. Ablaye Naar Assane njaay macha allah mun ma waaye dama bëgg nga ñëw yow man ko yaa ngi woo naar ci guxum soo mhm. waaye mu jaral la ngay wax man ko sama benn xarit tudd Jibi Traoré ma àndal ni ko jógal nga dem moom day ñëw mhm. ah loolu de xam nga ni ku ma ci woo wax dëgg yàlla bu ñu ma woowul sax war naa mën a dem. loolu moo tax nag waaw ah, ñu bi ma ñëwee fekk naa fi ñëpp su demee dina neex su ma demul dina neex. waaye su ma ñëwee. Mhm. day gën a neex bi ngay soog a agsi lan moo nekkoon réaction Wally Seck. bon il était surpris kontaan. Mhm. vraiment lëng ma fóon ma ma fóon ko ñëpp kontaan ndax kenn xaaruma woon mhm. noonu la war a demee. d' accord dafa mel ni yéen ñaar am na lu ngeen lu ngeen jot a déewante lu Sénégalais yi déggul ci image yi. loolu lu ma koy waxee kon. <laughs> mais loolu laa bëggoon a xam nag. doo ko xam. <laughs> lan nga ko jot a dee foofu. ba tax moom mu reetaan doo ko xam kon lépp code la. waaw lépp ay code la. en famille la quoi te bokkoo ci famille. ah ci famille bi laa bokk kay bokkoo ci maa reen laa bokk. sekk sekk sekk d'accord ayca ah. euh, gis nañu famille bi yëpp teew euh, ñu gis euh, Bambaly Seck teew yow nga teew fa ñenn ñi di posé wu question dëgg la am na lu nga xamante ni jotoon na fee jaar ci digganteem ak Mandiaye Seck gis ñu mu teew fa ndax jàpp nga ni tey loolu waroon na mën a continuer ba jamono ji. lan moo xew. Ah, xam nga ko kay coow lu fi amoon ci seen diggante ñoom ñaar. coow peut benn discussion. Mhm. entre famille yaa ko ëppale foofu li ngay discuter sa suñu yoon nekku loolu sa ah lu dem ba ci penc ma nag faaw ñu waxtaanee ko ci penc mi nag moo dem ci penc mi ah ci penc mi la dem coow li kon daal siiw du jaami moo tax ñu war koo régler nag mais yooyu du dara coow yokk promotion la rek ah doom jaa ngay xuloog baayam mhm. wala baay baa ngay xuloog ndeyam mhm. ah doom jaa ngay xuloog wala ma ngay xuloog sëram mhm. wala dara waa loolu lu ci jar coow ak yokk amplifié. Mm-hmm. c'est entre famille. mais bu doon coow yokk promotion est-ce que duñu gis Mandiaye sekk teew fa. mais xanaa xamoon bu ñëpp mënoon a teew sax disponible duñ ko def. Mm-hmm. xamal loolu. ah bon ah. nekk ci réew mi. Mandiaye bu nekkee ci réew mi Mandiaye nit la Mandiaye man naa tëdd dina la effectivement. Mm-hmm. woo naa ko sax pour mu ñëw waaye boobu da nelaw bi la tànk mu yeewu man jóge naa ci anniversaire bi ñëw. parce que léeg-léeg bu joué wul day teel a tëdd. d'accord ñëw na seen ñaari baay bokk ndey ak baay. Mhm. Mbay si Njaay ñëw na Benjamin ñëw na papa ñëw na macha allah. Mhm. Aram ñëw na seen yaay ak ñun ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. Abdoulaye ta nga fa woon. yaayam maa topp ci moom ñoo bokk ndey ak baay. d'accord suñuy jarbaat Jo Mbaye koy dégg ñu ne yaayam ñoo bokk benn baay waaw luy doyul. ah wax nga ko de woo nga ko muy nelaw mais tey bu bu fekkee ni tey wax nga ko euh, ci ci sa benn vidéo nga ne Wally Ballago sekk jamono ji moom la yar wi daal comme papaam waxoon na ko woo nga ko muy nelaw ndax jàppoo ni tey waroon naa mën a déplacé wu nag yeewu ci ay nelaw mi ngi doon déplacé na ah. xam nga fekk ko fi. ah déet kër jëm gisuñu ko kan kooku fi néega ma ngi ne gisoo ko. moom ba Ndiaye Seck. waaw ah. kër Waly Seck la jëm. la jëm ah kon mën ah, nañoo xanaa neex xaar vidéo yi. xanaa loolu du la lu ngay defalee sénégalais yi rek. ba tey même bu dee defal la sax baax na. Mhm. ndax wax bu rafet sax moo gën wax bu ñaaw. Ah. teg ma bàyyi noonu. d'accord mais seen relation naka la naka la demee jamono ji est-ce que yéen mag ñi yéen a ngi ciy dox tànk jàmm ngir ñoom. ci seen jàmm rek amul leneen. ba mu waxee ba tey génnaatul dama njaay sekk. waaw da ngeen bëgg toujours kuy génn yéen loolu ngeen bëgg. waaw xam nga nag boo toogee ci penc mi waaw ci penc mi nag wax ni ah man kat xëy na kontaanuma ci diw wala kat diw na mu meloon changé na euh, bu fekkee ni tey jàmm amaan seen diggante ndax jàppoo ni war ngaa demaat ci penc ma waxaat ni mel loolu cela ne veut pas dire que ni amul jàmm kontaanuma ci diw wala diw kontaanu ci ma mhm. mais loolu loolu loolu la sax ah Ah waaw mais bu ne tey jii tegu ko ci yoon ndax jàppoo ne bu fekkee ma ngi koy tegaat ca yoon war naa demaat ca penc mën a teg na ko ci xam nga ku nekk gis-gisam la mhm. tegu ko ci yoon xëy na ndam bëggoon wala nam ko bëggee woon amewu ko noonu rek mun a tegu ko ci yoon loolu gis-gisam la mhm. ndax gis nga ni mi ngi koy teg ci yoon Waly Seck kookan la Waly ah yow de li nga ma bëgg a wax loo ah déet damay laaj xaaral rek mhm. yow loo may laaj yow yaa ma ko gën a xam ah. xam nga teg ko ci yoon wala ñàkk koo teg ki yoon man d'abord war na maa posé wu la même question est-ce que man maa ngi koy teg ki yoon wala teguma ko ci yoon. Mhm. bul jàpp nit di critiquer rek te xooloo sa bopp ndax yow peut-être li ngay critiquer nit yow mi ngi si yow te yëgoo ko. Mhm. <laughs> waaw. d'accord kon kon kon <laughs> Mandiaye Seck li muy critiquer ak jàpp nga ni moom. ñu ngi ci yow Mandiaye Seck moo la. <laughs> déet avancé nag mais faaw ñu tëj parti yooyu. yéen kaa rek ngeen bëgg ci kaa ngeen di dox. yàkkamtu leen ñaar ñi joxe ñante ba ngeen indi seen caméra yi di wax di laaj rek. ah dañuy defar rek fi nga may fekk. defar rek dañu tax a jóg d'accord ayca ñu ñu avancé ci ci ci leneen parce que euh, gis nañu ki nga xamante ni moom moo di amet ci aussi. mu génn daal di def sortie waaye dafa mel ni maar nag ñi koy critiquer mi ngi ñi koy critiquer mi ngi mi ngi bëgg a bëri ndax gis nañu amet ci moom itam mu daal di génn ne. kontaanul ci Wally Ballago Seck wax jooju jur coow ñëpp di ci wax. yéen nee na ko amplifier. parce que qui aime bien châtie bien. Uh-huh. nit ki boo ko bëggee sax da nga koy critiquer mm-hmm. Ameth Thiou ku baax la Ameth Thiou ku bëgg Wally Seck la Ameth Thiou dafa yàgg ak Wally Seck mm-hmm. Ameth Thiou Amady ñoo bokkoon benn kër di fanaanandoo di yeewoondoo man ak ñoom ñoo bokkoon nekk Ramadaan boobu Wally wayu mm-hmm. mais bi Wally ñëwee commencé way ñoom Ameth Thiou ak Amady Badiane dañoo encadré Wally kon nag buñ demee ba mu yàgg ay coow am mm-hmm. lu garaaw man kay fenn rek laa am lu may reproché Ameth mooy yu mel ni su amee waali rakkam la doomam la mu dem kër waali mm-hmm. wax ak moom waaye réseaux sociaux yéen yi nga xam yàkkamtu woon lu dul ñaar ñu am problème ba ngeen ñëw ak seeni caméra fajar teel yaa ma yee waa ñi leen seen nii ngeen nekkee yaa ngi ree de <laughs> baax na loolu dara. Mm-hmm. léegi lu muy mujjee dañuy réconcilier rek avancé ngeen mm-hmm. jublu ci leneen leneen ay xaw ngeen dem feneen léegi yéen. waaw lu leer mm. mais kontaanuma ci moom bi nga xamante ni daf ko waxee ci benn xam nga yow nee nga tey dëgg la d'accord fi nga xamante ni foofu la ko waxee mais est-ce que gisoo ni tey waroon na mën a jël téléphone am. def benn acte woo Waly Ballago ba nga xamante ni day dem kër Waly Seck. waaw parce que am na am mm-hmm. cër bu ci moom am na cër bi ci moom. am nañu amitié bi. Mhm. mosoo dégg seen problème. du rek waaye àdduna lañ nekk nag nekk ñu àjjana. Mhm. il faut problème di am il faut nit ñi di feebar di wér ñii di am di ñàkk. Mhm. ñii di judd ñii di faatu ñii di màgg ñii di màgget. loolu mooy àdduna yàlla moo doxale noonu àddunaam donc il faut ñu xam ni que ku nekk ci àdduna moom fokk yi dox ci àdduna dox ci sa kaw. loolu rek ndax gisoo ni am na manque de respect quand même. kan ci mu Ameth Thiou euh, anam bi mu ko defee parce que ku nekk xam na ni Wally du kenn ci réew mi. dama ni. Mhm. nit tey jiw nul n'est parfait xam nga naa la ñoom ñaar ay xarit lañ mhm. fi ma koy reproché rek mooy bu amee lu muy wax ak Wally Seck nga dem kër Wally. yàlla moo bind jaam ñun ñëpp yàlla moo ñu bind est-ce que ñëpp dañoo kontaan gëm ni yàlla am na. amul mm-hmm. waaye léegi lu yàlla amul mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amu ko sëñ Tuuba amu ko moom alaaji Maalik amu ko ñu baax ñi ñi nga xam ne tooñ ñu kenn mm-hmm. dimbali nit ñi rek moo leen tax a ñëw ñooñu lu ñu amul est-ce que mën na ko am waaw ah, kon kay jax gisoo ni yi am na ci quand jalousie comment ci ci mbir mi ci Wally Seck fi nga xamante ni toll na fa tey parce que ñenn euh, ci ay sénégalais ñoom boo xoolee euh, kàddu yi nga xamante ni koy wax dañuy wax que ni peut-être Ameth dafa am jalousie bu tàmbalee dugg ci moom tax mu mel ni ku kuy énervé ci mbiru Wally Seck yéen ñi yéenay créer jalousie ndax jalousie yaakaar naa bu doon am jalousie mënoo ko nëbb lu yàgg <laughs> Ameth Thiou bi mu àndee ba mu àndakul ak Wally ku mm-hmm. ko xool ak xool tey bi mu àndee ak li nga xam ni mi ngi sant yàlla nag mhm. waaw kon ana jalousie fan la am place foofu mhm. booy jaloux kay da ngay ci loo xam ne xëy na mosoo ci wala ñamoo ci wala jariñoo ci mais Ameth Thiou fi mu nekk nii boo ko xoolee fecckatu VIP la mhm. li muy fecc sax bëriwul xam nga bëri tiitër ah. yaa ni waaw kon ah, Ameth dafa Ameth kay foo mu waxee yëkkati ñetti abdu yi daal di fa xas wane ni moo fi ne voilà waaw ku mu àndal ba mu ba mu mel ni <laughs> ah bari na loolu moom yaa ko mën a lim waaye du man dafa ndànk yaa xam nga ci dara bi nga juddoo xëy na yàggul uh-huh. waaye ñeme gi nga ñeme uh-huh. ah, ak engage bi nga engage <laughs> loo bëgg a xam danga koy xam Ameth yàgg naa am teranga uh-huh. ànd naa ak Fallou Dieng ànd naa ak Thione ànd naa ku ne ay wax dëgg yàlla bi mu ànd ak Wally Seck delluwul dafa dem ci kanam d'accord ah, kon ana jalousie foofu ndax gisoo ni tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo bees. Hmm. maanaam dolleeku ci biir euh, Faramaren ndax gisoo ni loolu itam. Euh, bokk na ci li koy li koy li koy déranger. quand même parce que gis nañu waaw parce que gis nañu ñeneen ñu bees ñu nga xamante ni dañoo ñëw dolleeku ci biir Faramaren euh, bokk na ci ki nga xamante ni moom moo di Baye ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni gis nañ leen ci biir groupe bi te aussi nekkuñu fa woon ndax gisoo ni loolu itam mën naa créer jalousie ci ci ci. ànd bi mais bokkuñu rôle. waaw ah. Baye Sall manager la. ci staff la bokk. keneen ak keneen. Ameth Thiou Amady Badiane ñooy danseurs yi. kon ñoom ñaar kenn kenn dérangé la kon ana ana jalousie. Ah, da doon danse di taasu nag parfois da daan jël micro di taasu. ba léegi mi ngi koy def. Mhm. waaw bay ngeen bëgg a créer lu amul. Ah, mais mais kenn créé parce que gis nga moom moo toog ci réseaux sociaux yi wax. te aussi sénégalais yi dama jaloux wala. <laughs> ah déedéet waxul. Ah, yaa ko wax waxul ni yow da nga de. noonu non ma moom moo mhm. toog ne man Ameth Thiou dama jaloux est-ce que ko dégg mais waxu ko mais ci jëfin ak li nga xamante ni moom la sénégalais yi di wax ñun question mais y li mu wax dafa wax li mu sentir moom mhm. kontaanuma la kontaanul peut-être mhm. ah, ah ndax yaa ngi ciy dox ay tànk ngir ngir jéem leen. Euh, dajale wax dëgg yàlla doxuma ci lenn. ndax damaa xam ne ñoom ñaar fi ñuy mujjee rek mooy réconcilier wu rek. ah loolu nga jàpp. ah non loolu lay am incha allah ah, on fan nga fan nga teg kàddu parce que bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk. li mhm. lay bëñ képp làmmiñ bu metti lool. Mhm. waaye day tax nga mën a dindi làmmiñ sànni boo ko dindee dootoo mën a wax ëpp law de. Mhm. dootoo mën a wax ëpp law ëpp law làmmiñ da koy da ciy joué. te bëñ it mënoo ko wekki. dëgg la amet ci ak waale noonu lañ mel. d'accord dégg nañ ko moom ci boppam mu wax ni euh, tey euh, déggagul kenn ku nekk ku am fitu maanaam toog. daal di koy toog moo la fi indi. waa ak li ngay wax ni danañ ci ñëwaat loolu danañ ci ñëwaat bul yàkkamti. xamoon naa ne bu fi wiiri wiiri jaari ndaari. waaw fii mooy fekk d' mais mais moom li nga xamante ne wax na ko ban jàngal nga ci am parce que nee na euh, euh, moom mayul kenn muy taxaw euh, maanaam di di di wax ci kàddu googu di ko wax dëgg maanaam kenn amul fit boobu. moom Ameth Diouf tey kàddoom yooyu ndax jàpp nga ni lu war la parce que nee na déggul kenn koo xamante ni faramaareen nga nekk tontu ci. man maa ci tontu. Mhm. xam man dégguma li ngay wax. waaw ah. li mu wax. waaw yow li nga wax. maa ko seetaan. waaw léegi Ameth Diouf moom bu ne mayul kenn mu wax ci mhm. waaw kon lu moo tax mu dem ci réseaux sociaux yi di wax mais baax day am tontu quand même nekkuñu fi pour tontante mais pour waxante c'est entre nous léegi c'est une famille ah Ameth dafa yàgg Ramdan dafa jaxasoo ak famille Faramareen mhm. bu tax boo gisee man ma am sañ sañ naan ko bu ëllëgee bu amee lu muy wax na dem ba ci waal yi këram mu wax ak moom parce que c'est une famille et le linge sale se lave en famille mm-hmm. yéen yéen jarul ngeen si jot mm-hmm. yéen loolu mooy doxal seen affaire ah. ne nit ñi di wax di xuloo mm-hmm. kii di jëw kii kii di wax kee rek ngeen tëb seeni caméra yéen ñun kanam gi waaw ñun ñëpp ci nga bokk nag bokkoo ci ñun ay mbo ay mbokk lañu ñu ñu arriéraat tuuti ci ci ci anniversaire bi. Ah. parce que euh, dañu gis euh, teew bi nga fa teew mu nekk teewaay bu rafet lu nga xamante ni euh, ñu bëri ci Sénégal yi dañ dañu ko dañ ko rafetlu parce que xaaruñu la fa woon. mais dafa am yeneen kàddu yoo xamante waaw ñu bëri nag ñu bëri nag papa xaaruñu la fa woon parce que jàpp nañu ne mag nga xëy na yaa ngi yaa ngi ngi ci julli bi yaa yaa ngi ci kurus gi di ñaanal njaboot gi yooyu waaw. waaw maa ngi ci maa ngi sant yàlla war na sama caméraman julli julli moom oh. looy def sax ba julli fekk la mhm. bàyyi loolu nga dem julli ah. kon julli amul mag amul ndaw d'accord amul góor amul jigéen mhm. d'accord mhm. li tax nga ni kenn xaaruma foofu pourtant man maay Thione Seck Thione ngi nii ak Ousmane Seck lu ñu bokk waaw loolu loolu loolu Sénégalais yëpp xam nañu ko waaw ndey ak baay waaw est-ce que man sama teewaay foofu war na nekk sax surprise booy xool. Mm-hmm. Eh, na peut-être euh, xale yi boo juree ay doom ñu commencé màgg mm-hmm. nag di doxal. Mm. mais da leen di bàyyi ñuy doxal ngay observer soo waree génn wax nga génn wax. Mm-hmm. soo waree dem nga dem. soo waree yóbbante nga yóbbante. li rek la. d'accord amul leneen. tey ñi nga xamante ne dañuy wax ni maanaam sa teewaay foofu euh, bokk na ci sax bëgg a taxal diggante Waly sekk ak Mandiaye sekk la. laa ilaaha illallaah fii dara ñàkk su fi Waly Seck ak Mandiaye sekk ñoo bokk ndey ak baay. gis nga ñoom ñaar sax macha allah nit ñu niroo bi. waaw ñëpp dañ ni coon moo jur Mandiaye. Mm-hmm. man maa jur Bombali. Bombali. Mm-hmm. bàyyam ma Penda la Seck la Waly Seck baayam Thione Seck la tudd Mandiaye Seck baayam Ousmane Seck la tudd ñett ñi buñ dee jaawale naan kii moo jur kii ak kee moo jur kii nga xam ne deret foor na mhm. kon kay Mandiaye ak Bombali ak euh, Waly Seck ñoo bokk ndey ak baay mënuñoo mhm. teqalikoo mënuñoo xaajaloo mhm. discussion nag day am désaccord day am mais dañuy accordé waat rek ñu avancé. kon rataxal biñ ciy wax ak yooyu. amul lu ñagas ba ñuy rataxal place nga fay utal ma njaay sekk ak loolu yëpp kon ñoom seen ay kàddu la. mais bokkul ci li nga xamante ni moo la taxoon a jóg. li ñuy wax ne rataxal diggante moo taxoon nga nga dem seeti ji. waaye sekk ci anniversaire beeg yooyu. sama rôle mhm. même bu dee loolu la sama rôle. sama rôle boobu mooy man man am naa ay mag. Mhm. coow bombaali bi mu amee fii. ba pare mi ngi France jëlul sax téléphone di ma wax lu ma war a def ak lu mu warul def. Mhm. wala mu ñëw fa mu toog la toog kenn ku ci nekk ci ñun nga dox ci li nga ci war a dox loolu mooy famille. Mhm. yow sa problème kër yi nga bàyyi ci kër gi man lu ma ci. ah chaque jour maa ngi koy lijjanti nag ci internet man est-ce que xam naa ci dara xaw ma ci dara yaa ma ay problème famille foofu ah, léegi pare waaye sama famille dañoo siiwul nag. <laughs> yaa ngi ci yoon bi yaa leen di siiwal yow. <laughs> d'accord am na solo euh, macha allah euh, ginnaaw loolu tey euh, boo amoon conseiller boo xamante ni moom ngay jox Wally ko sekk tey ci entourage am lan lay doon parce que sortie yi nga xamante ni ñenn ci ay entourage dañu koy amal te moom rek nekk fi artiste comme ñenn ñi nu ñu ko waxee. tey boo waaw waaw bokk na ci ci gën a siiw. non amul bokk na ci. Wally Seck moo ci gën a siiw. Ah, macha allah ah Youssou Madjiguène Ndour la. kooku papam la. Mhm. kooku mooy daj dëpp gi. ah Sidi Diop tamit siiw na nag papa Ousmane. waaw waaw. ak ah, ñeneen ñeneen. waaw ah, moo tax mu bokk ci nag. non non ñoom ñëpp. Mhm. Wally mooy seen référence fi Wally teg tànkam fa la ñëpp bëgg teg seen tànk comme Wally ni mu visé woon Youssou Ndour. Thione mhm. ñooñu. loolu mooy nit ku nar am jom. da am idole. bëgg di relever toujours défi. d'accord te moom ci loolu la nekk. kon nomba woon bi nga xamante ni moom mi ngi koy woote kon euh, yow da nga ko ciy sollicité bu baax a baax parce moom nee mooy numéro un ci ci musicien yi. da nga ko weddi. déedéet weddiwuma ko kay. waaw ah, ah, damay laaj rek ndax yow. weddi gis bokk ci hmm? koy appuyer bu baax. Mhm. te di ko encourager xamal ko ni ñëw faramaaren pur mhm. waaw d'accord conseil bi nga koy jox mu Wally Seck ci ci lan lay doon. mooy mu gën a xam ni. moom li papam daj moom du ko daj. Mhm. li papaam daj li mu dégg ah. moom attanu ko sax. Hmm? Hmm. parce que gën a yàgg gën a dégg papaam presque def na cinquante ans carrière te Wally bu amee dix ans it ci la yem donc il lui reste encore beaucoup à <laughs> donc loo mën a dégg daal jàppal ni leneen a ngi ñëw. Hmm. waaw ah siiw du jaami borom. Mhm. loolu rek la. d'accord ñu dégg la nga nga. jaaxagul. waaw Papa Ousmane tamit. 15 nga waxoon naa la ko dañuy tàggatoo foofu dañ la dégg. nga gërëm euh, ki nga xam ne moom moo di euh, soxna ay dara. ñu bëggoon a xam tey seen relation yéen ñaar lan la. xanaa mu nekk sama goro moo jur jëkkëram. waaw ah. mu baax lool. Mm. macha allah wax naa ko keroog nee naa ko première chance ci góor. mooy jabar ju baax. mooy di ñëpp di wax. waaw te yàlla may na ko ko. Mm-hmm. yàlla na leen yàlla defal cat. Mm-hmm. gërëmuma ay dara kese képp ku nekk ci famille bi di fi sëy gërëm di sant. Mm-hmm. ndax jigéen kenn amul njëgam jigéen boo xam ne dafa bàyyi kër bàyyi kër baayam bàyyi topp la ngay sëy moom ngeen di am ay doom doom jur mu jumu jur yow nga neex nga tuddee ko. mu yor sa sant. ku ne xam na sëy ak artiste yombul te mu nekk famille boo xam ne ay artiste lañ mm-hmm. euh, coow li bari firanga bari jigéen ji fi toog di fi muñ rek mm-hmm. jàmbaar nga sant gërëm ñëpp nag jigéen ñi mm-hmm. mais di gërëm aussi sama rakk Keba Seck rakk la joo xam ne topp ci man vraiment te man regretté wu ma pourquoi coon dénkoon ma ko Euh, mu nekk ku baax ko xam ne moom it ku mën famille la. Keba Seck. Mhm. lépp loo gis ni mi ngi koy def ci mbedd yi rek ci famille bi la njëkkee. Mhm. amul lu ne gaañ waaye li ko yàlla jox yàlla xam na ni mi ngi koy defaat ci famille mhm. euh, loolu nag nga wax ci nit lu baax te yàlla rek tax. wàññiwul dara. lu baax dañ koy siiwal lu baax dañ koy jébaane donte dafa def ngir ngistal sax ku ne xam na ne ngistal moom baaxul waaye ngistal dina am fu mu baaxee xam lu tax mm-hmm. dina am ñu ci jariñu ngistal boobu dina am koo xam ni soxla na ko lool mm-hmm. ku feebar tey ji nga xam ne tey ji quatre cent mille wala cinq cent mille moo ko war a opéré mm-hmm. nga ñëw caméra yi tiim la nga joxe ko moom mu dem faju ci wér nekkaat ci boppam di liggéey xam nga yow da ngaa ngistal waaye sa ngistal boobu baax na de. Hmm. parce que am nañu yor ay milliards te du ñu maye dix mille. dëgg la bari sax bu ñu koy maye boo motul dañuy feebar ay fan sangu. Hmm. siburu ndax dix mille yi ñu génnee ñooñu alal moo leen moom. mais hmm. ki nga xam dafa yor alalam lu ko yàlla jox mu joxe ko ba pare ah, gën a yege gën a jege gën a yey. charité bien ordonnée commence par soi-même ngay def lu baax te ci sa famille nga ko commencé mhm. ah ñu ne buñ nee diw baax na ñu ne wax mbokk yaa ko wax man de duma waxal kenn lu amul mhm. barke Seydina Muhammad keebaa laa la wax moom it ñu ngi ñaanal ñu ñëpp ñaanal xale yi ñu ñëpp mhm. mais moom du jeune talent Mhm. pas talent la waaye macha allah bi ko yàlla ubbee mhm. ubbi nañu bari ci famille bi moom kay baax ah, waaw mhm. yàggul dara fii lay ñëw gaara otoom ñëw bu ko laaj dara day ñëw rek génne xaalis bu bari ndax mu dem jëndal na ma oto yàggul Keba Seck hmm? waaw oto bi ma jëndal noonu man oto am naa ko fukk yoon ak ñett man ko bii mooy quatorzième waaye bu dàqul ci yi ma gën a neexit bokk na ci yi ma gën a neex sama àdduna ndax lan waaw ndax moom magum jëmm la ak acte bi waaw acte bi la façon du donner mm. vaut mieux que ce qu'on en mm-hmm. tabax kër ba mu rafet ñu foog ne fa lay dëkk mu woo ay sëram di leen kaa leen dëkk yéen ak seeni doom moom muy luye ki mm. jarul ñaanal moo ne Keba Seck moo def loolu. macha allah allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. macha allah kàddu yi am na solo merci beaucoup ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko jaajëfal dañu lay bàyyi rek xanaa nga nga tàggatoowee ak uh, ñi nga xamante ni ñoo la doon seetaan ci univers info ak Dakar live. Mhm. Euh, balaa loolu. Mhm. balaa ñoo tàggoo ah. am na sax lu ma fàtte woon. merci mooy événement wu bi muy def 20 je mhm. pense. 31 31 mhm. premier anniversaire am. waaw mhm. ah, loolu du yomb. kooku moom man mi sax sekk maa leen di invité ngeen ñëw. waaw incha allah. parce que euh, ku tardé. ku xaw a xef foo toog moom doo ko am. incha allah ndax première la nag. non seulement première. waaye dafa neex day neex. te famille cekkeen ñëw woote waat. Eh, Faramareen. neex de. Uh-huh. dina neex dina yëngu. dina yëngu te uh-huh. dina yàgg. lool. ku fa ñëw. Uh-huh. da nga gis loo mësta gis. kon da bëgg daal ñi ñëw sor carax rek. ah sa carax sax xanaa nga sa carax yoo xam ne du dagg carax yu dëgër. dàllu ngaay nga xam ne dañ koy defar der bu baax. solal carax yooyu. d'accord ay ca tàggatool ak ñi la doon seetaan. xanaa dellu santaat yàlla. julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu wayjur yi fa ñu tëdd yàlla na yàlla dogal ñu nekk firdawsi ak bépp jullit bu nekk ci biir suuf rek mm-hmm. euh, di ñaanal encore sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te di ko jaar ki sama sang bi sama sëriñ bi seex Bass Abdou Khadre di ñaanal kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi mais di kontaan ki seen ñëw parce que yow dama la doon éviter di la daw ndekete yow saf sàpp nga def ma amoon naa raison ah. heureusement nag. je suis un vieux mm-hmm. boo daw lu ma daw. waaw lu leer. <laughs> boo fi ñëwaat di ko waajaat. <laughs> bu baax a baax léegi nag di wax aussi internet yi. Uh-huh. ah jërë ngeen jëf. am solo. ah jërë ngeen jëf ñi déglu ñëpp baluwaat ak ci julli gi ñu jóge mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla bu mu doon suñu dernier. Korité amiin amiin yàlla nañ ko fekk ay at yu bari. amiin yaa rabbi waaw fekk. jërë ngeen allah jërëjëf merci beaucoup ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko jaajëfal ci kàddu yi am solo yi nga xamante ni jokkalante na ko kon ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu doon teewlu ci Dakar Live TV Univers Info yaakaar naa ne nag kàddu yi nga xamante ni jot nañ ko fee yëkkati am na solo bu baax a baax di ko jaajëfal ci OFTM ndax bu ko neexoon itam ñu daal di koy woo waaye tamit mu daal di bañ xam ngeen ne nag temps amul ndax ñoom ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñoom ñoo nekk ci milieu bi saa su nekk rek ay programme da leen di tënk tax na ñu ngi koy sant di ko jaajëfal jaajëfal bu baax a képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy bàyyi xel jox leen rendez-vous bu yàggul dara ci beneen ndaje jërë ngeen jëf